bismillahi irrahmani irahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yi damay dabaatal rek uh, ñaari tomb bañet uh, ci waxtaan bi mooy ne bokk na si liñ ciy jàngee ci xisa boobu wax naa la ne borom xam yi génne nañ ci ay jàngat yu baree baree bari ba ñenn ñi sax indi nañ maanaam ñaari fukki jàngat ak yu teg kon les yi nekk si ay jàngat bari na bokk na si si yoo xam ne dama koy tudd ndax dafay am solo lool mooy ne borom xam yi dañ ci jëlee ne ndekete maanaam ndabu yeefeer yi lu laab la ndabu yeefeer yi lu laab la gis nga soxna si maanaam nekkul ab jullit waaye terewul bi nga xamee ne indi indi na ndox moo xam moo xam ne moo ngi ci uh, ay bidon utilisé nañ ko ñoom jullit ñi mm, di si di si sangu set di si naan dal seeni jur kon lu set la comme masalan yow mi nga xam ne masalan sa dëkkandoor nekkul ab jullit mun nga mun nga utiliser kuddam mun nga utiliser boolam mun nga utiliser cinam ak yu mel noonu maanaam uh, ay outils yoo xam ne dañaa wow maanaam kudd bu boo bu woo boo xam ne tooyul ak yu noonu ndabam ciinam ak yu mel noonu yooyu yëpp mën nga kaa utiliser loolu yëpp mën nga kaa utiliser léegi nag euh, su su la soo waxee ne man dama bëgg raxas nga raxas ko loolu si yow lay dellu waaye fi ñuy waxee mooy ne raxas bi nekkul forcé raxas bi nekkul force fii ak leeru la ne fii ak leeru la ne maanaam euh, am na sobe rek wala am na lu fa nekk loo xam ne daganul euh, maanaam am na jeex am na ndesit bi si nekk boo xam ne daganul mel ni masalan euh, yàpp mbaam buñ ci teg togg wala kaas boo xam ne dañ si xelli sangara ak yu mel noonu su fekkee ak leeru la ne yooyu mbir yooyu mbir am na ci rek xamal ne mu nga kaa utiliser comme ni nga utiliser sa sa bool loolu moom mooy bu njëkk bi euh, ñaareel bi maanaam lenn si ay mbir la yoo xam ne Euh, dafay jaadu nit ñi xam ko mu leer masalan amaana am ku laaj waaw lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, jël ci ndaw si ndoxam te laaju ko ndigal ci loolu lan moo tax borom xam-xam dañuy wax ne instant boobu yim sallallahu alayhi ak ay saxaabam dañaa toll ci maanaam darura dañaa toll woon ci darura maanaam dañaa soxla ndox si anam boo xam ne euh, mënuñu koo ñàkk muñ mënuñu mënuñu koo muñ maanaam dañaa soxla ndox si anam goo xam ne mënuñu koo muñ dañ kaa soxla soxla bu jàmp kon boobaa maanaam même fekkente ne tey ndox moomu ki ko yoroon euh, jigéen la boo xam ne jullit la dañ ko doon jël ci moom waxatuma nag ku dul jullit waxatuma koo xam ne maanaam dafa nekk koo xam ne dañ kaa boole si noonu noonu yàlla yi jamono jooju kon maanaam jël bu ko jël ci heure boobu nekkul dara lu dul ne Euh, ñàkk pexe la soxla la soxla bu jàmp la moo tax mu am droit di ko jël ci moom di jël ci di jël ci moom ndoxam te gis nga moom jël na ko ci li feeñ waaye euh, li am ba des dëgg-dëgg ji mooy ne laalu ndoxam laalu ndoxam laalu ndoxam moom ndaw si moom yéen saa sallam laalul ndoxam noonu itam euh, amaana am ku laaj waaw lan moo tax yéen saa di si gëlaat ndiku di si tufli ñu ne yonent sasam bokkul ak nit ñi moom léppam barke la sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam loolu moom moom moom kese moom moo ko jagoo moom yonent sasam maanaam du sëriñ moo ko jagoo du kenn loolu moom euh, soo nangoo benn mbindeef defal la ko te du yonent sasam xamal ne boobu yaa ngi naan ay ay microbe waaye yonent sasam moom yàlla moom moo ko def ko koo xam ne léppam barke la sallallahu alayhi wa alihi wa moo tax gis nga jeexintal barke boobu ci. ndox mi nga xam ne ñoom ñëpp utiliser nañ ndox mi te wàññeekul au contraire dafa mel ni dafa yokk kon euh, loolu dama wax ne dama ko dama ko si ngir mu gën a leer euh, ma lay ubbil bunt tamit nga ut say jangat yoo xam ne yow yaa koy jàngatal sa bopp lépp loo xam ne am nga ko mu xaw la jaaxal nga bëgg koo laajte maa ngi la si incha allahu taala barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum assalaamu aleykum wa rahmatullah